man maa la wax loolu. non dañ koy fay. waaw Papis man maa la wax loolu. waaw bu ñu ko sotti waxee jooy jooyaat incha allah jooy jooyaat. non dama ne la su ma waxee da may fay rek may fay. jooy jooyaat. fa làmbaay ma daawul góor moo la wax loolu da nga may fay bu baax a baax maa la wax loolu. jooy jooyaat xeex nañ bëre. liy tooy caw la jóge ah. kon jeex na dinañ xeex dinañ bëre. loo kupp rek mu baatare. àdduna potu ndaal rek boo naanee da ngay jox sa borom mu naan Moodu. waaw noonu la demee waaw da ngay jox sa boy mu naan waaw noonu la demee de bilaay wallaay du ma la may dara loo may ma jël bilaay dara ma koy jël nag ay ca Modou Lo na Modou Lo moo na may na may leen Modou Lo eh, eh, may leen Modou Lo moom it mu mu muy di woote waat bu baax rek lu ñuy wax rek booy ñaa toogal booy ñaa toogal ku doo jeexal da nga dul matal di woowaat waa parcelle bu baax a baax surtout waa unité 10 waa 1 ba 26 maa ngi woo ñëpp leen wax nañu ñëw taxawaat le retour de Modou Lo incha allah di nuyu suma transitaire boobu muy euh, Khadim Fall am ah di nuyu Boy Ousmane borom Kasor di nuyu ñëpp daal vraiment. ayca Modou ak Boy Niang eh. mën nañu taxaw ñoom ñaar rek. Roof. rendez-vous bi le 5 mars. gars yi mu jóg ak Sa aca Modou Lo ak ñoom ñaar a ngi noonu di saafonte ayca ayca jërë ngeen jëf aca ñu may leen photo de famille ñu may leen Cheikh Sarr aca photo de famille ñu bàyyi Boy Niang njëkk wàcc nañu bàyyi Boy Niang mu njëkk wàcc